njabootu bàyyi laay laay wax yàlla fay la ko wax ni sa jëmm ji kese war naa mën a tax sëriñ bi déplacé am lu moom ma ni Aziz mais jëmmam kese war naa mën a tax sëriñ bi déplacé ak ku mu ndax baaxam oyofam disponibilité am dalam te naa ne sëriñ bi bi ma waree tukki mu tombe corona bi ñu ne ma boo amul vaccin yi doo dem Aziz mi laaw te bu ma mënee nangu loolu defal ma ko ci lu yàggul seen jëmm yee tax ndax ñun moom tekkiw ñu dara ci seen kanam ndax seen maam lu ñu yónni seen maam a woote suñuy maam gàddaay seen maam a defar ñun suñuy dara tey ñun seen maam kon Aziz bu ma nee loolu ci suñu jëmm yi seen yee tax kon Aziz yàlla yàlla fay. nga xam fi nga teg sa tànk foofu rek la sëriñ bi déplacé ko yombul oyof na baax na laay biir ni itam ci dara jàmm waaye xam naa ni du dem fu ko ñorut démb ba tey ku dégg suñu baati xam ni mënatuñ mënatuñu dara waaye ci oto bi la naan non non non Aziz ñu mën a def dinañ dem xam nga fan lañ waroon dem safar tey mbuur ña nga fa tant tant bu fere ci million toog di ko xaar ñemewul jël téléphone am ñemewu maa jël sama téléphone chauffeur yeeg ñii kenn ñemewu si jël téléphone ndax lan ci Aziz laa kon nag Aziz loo takkoon taxaw ci njabootu bàyyi laay gi yokk ko loo doon góorgóorlu ci ñoom yokkal loo doon def ci lu baax itam yokkal ndax lii nga am alal mayu la daraja mayu la lenn rekk la ko may mooy yàlla bis bu yàlla sàkk sëriñ bi nga dégg kon ni boole nan ka ak alalam duma boole nan ka ak taaram duma waaye boole nan ka ak yaram duma doo ko dégg mu kon Aziz nga teg sa tànk foofu la te yàlla jàppale la ah soxna si nga xamante ni nag muy sa soxna nga xamante ni moo sabab daje bi defe naa noonu la demee nga taxawu ko ñu ngi ñaan yàlla na ko yàgg mën yàlla na ko yàgg mën ko yàgg mu naa ni nekk ci lii moo gën nekk ci leneen tey bu sa soxna ñëwoon ni nga damay organiser collé dara wala damay organiser sabar loo ko bëgg bëgg bëgg di nga ni nga kaay ñu waxtaan defal nii bàyyi lii waaye lii mu nekk yaakaar naa ne tey kenn du ko ci fekk di ko yett kon nag yàlla nañu dajee bërëb bi dinaa ñu barki démb rek li sëriñ bi jógee ci marché bi toj fi rajax du dëkk bëggaat nag fii say sëriñ bi nga ko jàpp dina yàq Aziz kontaan soxnaam kontaan et ñi fi toog itam bëgg. waaw bëgg dal bi daal sëñ bi nee na Aziz tey da dafa bëgg dal bi wàcc kon nag dal bi sëriñ bi sëriñ bi nee na ñaan yëpp nangu lépp neex bëgg ñëpp wér lii def 17 naa 17 heures ba tey. li ma waroon li mu waroon sol sax du lii. dama jóge Ndakaaru. dama jóge Ndakaaru. ci ay bureau ci ay bureau domaine domaine. ma xam ni. ma xam ni. su ma yàggee kër ga. su ma yàggee kër ga. du ma ñëw. man na maa tànc ba du ma génn. ma jàppwaat ma jàppwaat. teguwaat ci yoon bi. lii moom. lii nag moom. diine képp ko mën. lu waay di def. lu waay di def. ku ko ma soo dégg. ilimaan mbëru lamb. mbëru kay musique. mu faatu. mu faatu. kii tëdd. ak a mënoon football. ak a mënoon football. doo ko dégg. ak a mënoon bëri. ak a doo ko dégg. waaye ak a mënoon. waaye ak a mënoon. jàng ak a mënoon. ak a siir. tey siir. ndaje yi. jaratu wallaahi njariñ dayam na xéewalam ñun ñii dem Touba xaalis bu bëri wax leen am xaalis bu bëri yàlla bàyyi ñu yàlla na yëkkati ñu ñun ñëpp defar suñuy xol li tax ma wax li daan wax te duma ci waxaat mooy Aziz. mooy Aziz. man dama ko bëgg la. sëriñ bi nee na la bëgg loolu waaye. yàlla xam na. Aziz yaa ko raw. xasida laa tiim. Aziz nee na moo la raw. sëriñ bi nee na xasida la tiim. te lii ma tiim. te maam nee na. maamam nee na. Seexul Xadiim. Seexul Xadiim. xam nga boo duggee cinéma balaa film bi am na musique buy daw Seexul Xadim neen balaa ñëpp dugg àjjana faaw sama xasaayid yi ñëpp dégg may ñaan ci barke Xaadimal Mustafa borom safar yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm soxna Aziz nag jërëjëf. sëriñ bi nee na du du ah man papa daal sëriñ bi ne xam na li xew. soxna si. sang bi ne mi ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal. mi sëriñ Saliou. nii am tey. nii am tey. ca njurul. ca njurul. waxtu nawet waxtu mu jël otoom. mu jël otoom. yab ay bagaasam yab ay bagaasam. pour ñibbi Touba pour ñibbi Touba. mu geesu mu geesu. gis gunóor yu bëri gis gunóor yu bëri. yërmande ak nitu àjjana ja ak ak yërmande ak yërmande yaatu ji. mu ne xale yii mu fu ñu jëm amuñu fu am naa fu ma jëm am naa fu ma jëm. mu wàccaat mu wàccaat xale. ku mel noonu. soo ko amee. boo profité wul seetal sa bopp maa ngi ñaan ci doole Cheikh Rafal yal na lépp dox wax leen amiin yal na lépp dox bu yemoon fii ah, neex na waaye li ma bëgg géej gi ñëw fii lépp neex lam yabdu mislu Mustafa Muhammadi سرا وجهرا في البراء يا سمدي لم يبدو مثل مصطفى محمد أحد لو يبدو مثل المستاء محمد سرا وجهرا في البرايا Ahmad Serigne Bamba ma delloo na lislaam wal kufram ana soppay Serigne Touba waaye def leen nii ñu màggal borom Touba ala نزغتي لكل زمان الظاهر والباطن من أتاه للائك كل زمان سرنا ملينا حكمته عن عياني أذبان وسفوا وذهبا كون المصطفى رئيسا لكل من قد فتن وروشا وقدماه فوق كل رقبة أنا سبي سرين توبة من استظهر الغر كل من هبا سرين ممه محمد المثال ظننت أن ربنا لم يرد مثلنا ومثلنا لا يرد له زيادة له البراء يوم لست ولد الشفاعة هو النبي هو النبي هو النبي والرسول ana soppay Seydina Muhammad way loxo sa doom ñu ma ko dafal ko ibu silaay sama may huwa nabi huwa rasul al khalil huwa al habib wal imam wal dalil عليه وسلم وصنع القدوس على غير الكمال كم النبي المنتهى محمد خير الورى المختار عند سمدي كم النبي المنتهى محمد خير الورى المختار عند السمد حمدي وسكري

سسارة فساد زيارة فرد حرمة من النظر هرمي أجم من زار الصبي سرسال إن الذين إلى سرسار قد خسفين koy jotal ana soppi Serigne Saliou waaw. loxo ca kaw ñu màggal Baye Saliou. Serigne Saliou Mbacké ayor la bambero Serigne Saliou. sàmm nga ko tey boole na Seex Bamba naanoon ay Serigne Saliou matal na ba dem. dem ba jirim xam ne jëbbal mooy léegi dooram Serigne Saliou jàmbaari xel kon de dum na ni ala sa koy Serigne Saliou makk ni leen ni borom jàpp na xabaan borom daga na dookaan borom daara yi ñugul borom daara yi mul xuraan daara yi daara yi kulus daara yi alimul xabir Serigne Saliou jàmbaari xel kon de dum na ni jannatul maxwa borom ñaari daal yi ci ñaabu borom jawaan géej borom xëy ga sëriñ Saliou jàmbaar yi xel ko nga dem na ni ana soppi sëriñ Saliou Mbacké bare ani xam nga jëm nga matal waaw us rek yi seen bamb jiital nga jëm mi digal ku daw baraw gaañe mu raw yaa ko rawal ay sareel yow daal kër Mbacké ay borom la sëriñ Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou sa waay du ñeewaayu keneen sa waay du xaatitum feneen kenn du lëkkam diggam leneen sa diine doy na xarnu Bye. mooy ki defaroon man sama baay yàlla fare ko doom li warit ba yow du laa sant naa laay leen sant naa yaa du defar ku garal defal ni sa waxo mooy ki defar sama baay ay waay ala fay da doon waay ayaw dula ama soppay sëriñ am waay loxo ca kaw bi Abdoulaye Thiaw moo yàqoo Abdoulaye ñoo nu defar ay waay bu la yàqee nu la defar baay yow dula When I see the light, I am the

مقلوبة زجاف عيون الله وعزتنا أنا الخير أسرتنا Satu

mbokki jullit yi mbokki taalibe mbokki yàlla yi ñu ngi ziar képp ku toog ci jotaay bii di jël ziar bi di ko jox xalifa bu tedd di ñu dëkk muy Papa Doudou Mokhtar Laye mu baax nii mm. ñu ngi koy ñaanal wér gu yaram di ko ñaanal naal yii mu naal yàlla na ko yàlla dimbali yeggale ko ku roy ci moom doo am ak kenn problème wax naa ko fii ma jóge ci suba mooy Serigne Mountakha Bachir Serigne Mbaye Sy Mansour soo xoolee ni leen yàlla dajale ci jamono ku ne xam na ni sëñ Mountakha ba muy jox sëñ Sidi Mokhtar ak jiyee ji booba ma hmm? mu jël quatre-vingt-deux millions ko xool ci internet bi di nga gis image yooyu mu jël bi di ko jox sëñ Sidi Mokhtar yàlla yàlla yokkal leera soo déggee kàddu yi sell yam ca boot ñu nga naan mbàkke toogal fii te nga te nga yàgg dafa ñu lay xoolee Sëriñ Tuubaa foofu sëñ ma sëñ mu doxaa deful woon sax ci boppam mu toog ci xalaat ñun magam du tedd dafa nekkoon sëñ si di waxtaan mu yiw mu baax moom maa moom nga xamante ni lu bëree bëree bëree defar <clears throat> nga naan mbàkke toog fi ñu lay xoolee Serigne Touba Magali mu ngay waxoon naan ko toog am na lu muy jàngale mooy kii fi toog si ñu doxaa ba mu toogee ba tey dafay reetaan rek kenn xamul li ko neex kon ku aju ci moom waruloo mer waroo andi jafe-jafe yiw tegu ci aw yoon te xam ni ñii nga yaakaar du ñu la war addina duñ la war a laaj. ku mel ni Sëñ Mbay Si Mansuur boo seetloo dafa téye lam yi waxula kenn ñu tudde ko borom fulle ji tudde ko wax ko tudd dëgg bi Sëñ Mbay Si Mansuur kilifa la dina xamante ni soo toogaloo moom mënoo ko xam yàlla dafa dogal man dama xam ni samay bàyyi nag siyaar la toog loolu laa la yoon woon ne bu aju ci yoon woowu sama soxna tegu ci yoon rek moo war kii fi toog ci Cambérène bii muy Pape Diouf ba ñuy doomam laa mais defe naa ba ma gis mat de 17 ans 17 ans te mu ngi fii ci kër ba ma nga gëjee ba ma nga gëjee tëgg mat na 17 ku xam Pape Doudou Makhtar mag ñi ko fekkee te nekkoon Cambérène lii amoon ci Covid bi ku la nuyu nga raxasu ñun xale bu ko nuyu wala ku ko mës a nuyu sax sama soppe mu dem raxasu ji fombaat loxo yi toog. kon maam ci moom lay te mu nekk intellectuel au niveau mu nekk ka nga xamante ni xam-xam bi ci tubaab dafa landi ci awxuma alxuraan mais xam-xamu technologie ku ko ku ko ci suuf ci àddina bi denkaloo fa waaye tey nga toog yoro xilaafa Seydina Limaamullaahi Mahdi euh, yàlla bàyyi ko kon dama naan xale yi ku aju ci moom maam toppal say mag ku la wax lu toppal say kilifa bay na ginnaaw coono bu mu bëri ba nga romb sa kilifa wala nga romb sa bagra demal nga topp moo gën a wóor kon li may wax xale yi mooy bu ñu xaar ku wax wala ku discours dañu tëgg tënku ci digal bu ñu tënkoo ci digal ñoom ak njabootu bàyyi lay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla bàyyi lay may ñaanal ku toog ci jotaay bi suñu soppe bi toog sama borom bi toog waxuma la may ñaan ah ku xam ku toog si jotaay bii rek yàlla nga fekke bi ku toog ci jotaay bii ma jari jim lu waaye bëgg yaa nga xam sa diggante ak sa borom yàlla la ko yàlla defal ñaan mooy ngànnaayu jullit adoon silaaxul mu'miniin am ne waaw ngan naayu julit boobu yàlla jox mu ko amiin bi bi nga xëcc muy ñëw dama ne yàlla moo ne ñaan leen moom ma may leen su ngeen ma santee ma dool leen ñun sant nañu ñu ngi ñaan mu dolli nu ku fi toog yàlla na nga fekk déwén ku feebar nekk sa yaram yàlla na yàlla seppil fegal la nga fële ji mais am na feebar bu soo demoon ci hôpital bi Diop pour mu faj la Diop du ko gis boo seetoon ma jimbi wala njaay ni nga moccal ma ka du daj muy feebaru iñaan fii quluubihim wasaadahumullaahu xol yi ñoo feebar xol ñoo feebar léegi sama oto defe naa maa nettali ki ma fekk bi may wàcc sama gën tuuti kon samara moo ñu tuur dama génn laan domaine point dama génn biir domaine wàcc Dakar di xaw di taw ma wàcce ci immeuble bi sama téléphone sonné muy ku muy ku tedd ma uyu ko mën ma Serigne Ablaye moo ma yónni ci yow. xam nga man aw ma baati damay nii may wax sax xaw ma fu baati ñoom gaso ñoo ñu am gàcce waaye ñoom ñi daal di am ci dara xool lan ma wax dafay méngoo sëñ Ablaye li nga demoon nga demal nga ni Ibou Sène mu defi nangam koo nga daf ka ni nga kaay ma jox la kuus gi mu ñaan ci ma génn dajeeg moom te gis nga yaakaar dafa foor gis nga soo dem dem Ndakaaru àdduna équilibre la équilibre lay dund bay na daal bay waaw booy yi mënoo fexe ba duñu fanaan. yaa ngi jàppal li yow bàyyi booy yi. waaw waaw. yow yaa jàngee fa jàngee fa de jàngee nu mu tëdd ba tey. yaa daan xaaj nit ñi xeere dama ni fii xulubihim maradun adduna ma leen équilibre xam nga tey bu comprendre yoroon 4 4 jëm Dakar mu dajeeg embouteillage bi war a jëm biir président embouteillage bi ne kekk arrangé wu ñu ko faral def mais kii taxaw di jaay mbuusu ndoxam embouteillage bii moo ko ki keroog pharmacien ba mu yegg di jaay garaaw lu mu bëgg est-ce que ñu bëgg leen feebar adduna équilibre waaye dama ñëw sama kër ma war a dem Kazu Rajab bi mu demee sëñ bi ma am na ku lay seet mi ngi yor saag ma ne alhamdulilah ndax muy tey ñëw man loolu laa gën tey billahi wallahi yàlla mooy gis ma bi ma may un mu cinq cent tey dama tiit la xaw ma daan am na sama doomu nijaay onge bu daan ne ci yow muy baal béy mu kott ma ci mbégte Ndakaar loolu sëriñ bi dama doon neen sëriñ Touba rek pour mu génne un million cinq cent ma jënd un million cinq cent ni ma paasu màggal. mu ne. àdduna équilibre la. waa ji ñëw. eh. ma wàcc recevoir que dëgg lu xew. mu ne ma man suñu affaire dafa arrêté fan yi doxul. liggéey bi doxul ba seen liggéey doxul. luy sa liggéey mun ma ñun ñoo nekk affaire pétrole yee dana ko yaa ko ay néew nga aw mais bon su ay néew awul ñu dund name something in the jazz. It's all right now, not the highlight. Rasulullah yéene nit ñi jàmm. daan xam ne jul xam nga kan moo solo di war a julli te bi lay mooy ka nga xamante ni ku am lu baax xol bii bëgg génn. julli xol bi day rafet tey jaay xam nga lu gën a doy waar yàlla dogalul nga ni yàlla li mu dogalul force day mooy nga gis paparaan yor alal ju dul jeex nga dem ba sa xol bi xat da dem ba am complexe ëllëgoon nga ñaara ni da ngay soxla naan moom di nga ko ana mooy ko. nit ñi la. te nag yàlla la ñëw mu romb la nga am xéewal nga ne fu mu ko jëlee iñaane ko koy yàlla di la gën a di gën a yéegal kooku yow ngay gën a wàcc. te yàlla loolu la man gis nga pour nga xam ne yàlla dafa maan billaay yàlla mu doon toog du xool toolu yéefar wala toolu jullit yoonam nekk ci. soo bëggee am jàpp.

ki yor nit ñi moom feebaru moom bëñam du benn moom du bindin subhanahu wa taala ma min daabatin fi ardi illa ala allahi risquha yàlla nee na maa yor xéewal bi nga joxe ni njoru mais nag foog nga am day arab bi tudde sakinatul xal foog nga am benn dal xam nga premier dal lan la man Ibou Seyni su ma dëkkoon ci néegu ñax bii nga seet si ma sama néegu ñax laa lay ànd yóbbu ma la saalu jàmbur day def métier yàlla yàlla saafara am na gars yoo xamante ne day dem ci xale jigéen ñi comme ba jëli vache keneen bi naan leen Suisse laa nekk ma leen yaraax dama fa day wax. gëmal sa bopp pour nit am équilibre njaay ci àdduna xam nga may def xoolal ki yor étage bu rëy yàlla yàlla foofu xoolal ki yor ëpp ci Dakar su guddee fu muy tëdd ci benn après ci benn bu bëri moo su reeree misu ba suur ndey kumba reere som seex kirdan ka reere misu seex kirdan ndax kirdan bi da nga ciy xàmmee kirdan som nekk yàlla ku giir nga giir bëri nañu feebar Ndiaye xam nga lu leen bëgg am li paparaan am amuloo ko mu jaral la nga dem ci gisaane kat ba fal ko man ko mu sax nii ma ah, ah, dem mu lay seetal nga naa daan defal ci man kee mi ngi may raw fekk fàtte nga ni yàlla moo yor yàlla nga doon ñoom bugaan ñëpp. amiin amiin amiin bugaan am wallaay mooy am. xoolal yàlla rek fi soo amee sakinatul xal bi mooy xel mu dal jim xam nga may def kenn du la déranger. jërëjëf barke Baye lay si. dama wàcce New York. waaye ñu naan fàll bu ñëw ma diwoon fi doo ko seet si ma ne ko yàlla tere man man ma doomu Ablaye Sow ji yàlla tere ma romb benn ti diwitiri xeex ba dugg baat vocal xeex xeex jàq diwitiri ñi daw xam nga ma naxal fii saxaar siy génn Cheikh Fall lañ fa dese ma ne waa ji ma xay def na la sama maam la moo àddina sama gars yi ñu ngi ko ñu ngi xew. jërëjëf sax jërëjëf. loolu baal naa na sama amul ku yàlla andi ci àddina te sa doo ko lekk. parce que alxuraan am nañu ñu ngi yàq bi seen wërsëg fekk dañuy anticiper seen wërsëg dañuy bu ñuy koy jot di waa ji dafa dem école jàng. dem Canada ñibbi si Sonatel jël ko mu nekk cadre au niveau xaalis bi ñu ko jëkk a jox mu jënd ci oto oto baa ka fay. kon li nga mën li ma bëgg a wax mooy wërsëg bu jotee ci yow yàlla jox lan ko. sëñ Fallou sama maam nee na ku fi ne ba déwén lekk ba déwén. sëriñ Fallou leer waaye léegi dafa ñëw ne nga Mbàkke ñaanal ma yéen lu ngeen yéen baax bu tooy ngeen lu ngeen ñaan da lu ngeen ñaan day am suñ tubaab suñ tubaab ne nga baax géej tooy loo loo loo ma jëndu sax kat est-ce que géej bi la sax ñax voilà soo bëggee am ci li mag ñi andi sama sama gox soo demee mën réew la fa am ak li am fii bokkul si tan moom kese sama sopp jërëjëf yàlla nga yokk ne ci li ñu sonnal mooy si c'était pas bu dul woon nag mag ñi fi ne réew mi tàgg na il faut mu xuloo moo tax Oustaz Omar Sall ak Alpha dañuy wax rek dañuy kàcc rek dëgg la wax rek bu seen maam woote woon coow am waaye ñu ne dem Kazu Rajab yorul dërëm taxaw Colobane bëgg ko yóbbu kenn yóbbuwu ko xaw ma fan la liggéeyantee Mbacke ni Mbacke mi sëriñ Fallu tegoon na ci loxoom salaamaaleykum murid yi sonn Mbacke ba jox ko xaalis bu dul jeex mu dem Touba waaw ah, sëñ Fall nee na man ku soo xoolee Diourbel déglu leen li may wax bu soo xoolee Tëngéej. soo xoolee Ndar. même construction bâtiment yi ñoo niroo même plan yi ñoo niroo fa doon colons yi ñoo tabaxoon loon pour xeex mag bi. xam nga ni. bi ñu demee ba xamante ni mënatuñ ci dara. Serigne Touba sànni leen xeer fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal ëmloo sëñ Bamba ne nuuru ma diraay soo ko sëñ Cheikh Rafal kon ñu saaganu timbi waaw ñu saaganu may ñu cinéma tudde cinéma bi cinéma allahu akbar saaga alkarim boo xam cinéma yi autant yi fi nekkoon turu alxuraan lidu alkarim ay nangam allah akbar el maasu et turu marabu njaay xam nga mel marabu baaxul parce que benn picc bu tay waaye ku dul nga tooñ ma wala nga tooñ paparaan paparaan dem gendarmerie kalaame la loolu la gendarmerie yow utal ma. avocat utal ma avocat. ku am avocat bu tënk Serigne Bamba booy bu la palee da nga jàll. am de لمن تهاب بزمان على جمال على جمال لمن تهاب بزمان بسم الإله ينمو بالله ku sopp si Bàmba la bëgg léegi téere bi ma yoroon tukki bi ma yoroon maa ngi dal ci jës bul xuloo gisoo ma yëngal sama bopp rek jërëjëf li si dox si jës bul xuloo damay bàyyi ba déwén ñu jàng ko fii bu ngeen wax amin ñu wax amin daan fekk déwén jaay waaw yonent bi mi ngi rëjaan waaw mais gars yi gars yi loo wax ñu weddi baatin baatin la ñuy weddi am de baatin am na moomul am na mais yow nga gëm baatinu tubaab bi bëgg bëgg weddi suñu baatinu maan mais wéef baatin la xaalis bi fu la ci dara xam ni wéef orange mo ne fan la xaalis bi ne ci biir orange te saa yoo ko bëgg tiire tiire ji mais mag fi yàlla teg am de tamit yaay na سورة الأمينة مع الأمينة ومع الأمينة يسري ما أمينة

la وجههما كافور به تخلي ولا تعبير محمد سيدي دينا Salli ñaan la ñu def. waaw waaw. aywa. déglu rek. Romba rasul rasulillahi romba booba Ahmadu la mu dëgg kii kan la mu dëgg kii mooy Ahmad mu ne ndax dooma ko jox mu yàlla ni maa ko gën a sopp ko fi tey. maa yonent bi ne ko bàyyi ma takk xel raama rasulillah raama rasulillah mina tawri Sëriñ Bamba raama rasulillah ñi yaa ngi dégg waaw waaw yonent bi takkoog Sëriñ Tuubaa xel yàlla ne ko man fu ngeen nekk yàlla ne Serigne Touba ndax dooma may yonent bi dafa di yàlla dooma may ma may Ahmadu mu ne ka na ma way ma may sama maam Seexul Xaddim jël xalilam allahu allahu jalilu maaliku خير الورى liggéey bu mag bi dem jëli sëri bu duun bi dul jeex bii bu mu kenn rey lu déggoo màggalu la joor wala màggalu sàmmoor mais ki liggéeyoon tey ku dem Touba xam ni liggéey na sëñ Touba newoon na si mbirum soxla. waaw ndox bi ñor la mu ne bu leen sàggalee Touba bi dañoo dem a dem ba xam ni kii dund lenn liy dal li liy dal ñëpp dina ko dal mooy mu génnaat parce que def nañ ko que plusieurs fois amuñu. Touba bi seen objectif moo doon jël ba dund sëñ Touba. dañ koo mën mënuñu ko. poson bi gën as as ba. poson boobu cimetière des éléphants bi nekk Côte d'Ivoire bu njëkk à l'époque ivoirien yi seen commerce mooy ivoire yi liy nekk ci ñooy nit ci trompette boo gisee caxam dafa cher ak lamam dafa cher léegi dañuy rey ñay bu ñu leen reyee ñay ni mu toll balaa moo seey xet bi sonnal leen mhm. ah. ñu créé poison bi gën a ba bu tudd as as vat gis nga poson bi buñ ko fëlëlee ñay bi rek ñay bi day wow koŋ dootul xeet waaw lu ñu fëlëlee ñay mu wow ku bu ko nit naa ne fu mu tubaab bi ni bàyyi leen sëriñ tubaab maa ay ci moom mu jël posan bi tugg biir la mel laa ne ni leen kenn jaay di café mu gis ni sëriñ baa ngi kutti kutti di defar café mu jël posan ba def ko ci café gi sama maam mu ne secc kaas bi téye ko may maa la nes café géej nañ ko gis ne café Touba doo xew. waaw woo ma nag café des que man tubaab yi julli ngeen publicité leen waaye sëñ Touba kaaf ba mu téyoon moo tax café Touba jar tey. te jar na moom loo sax. loolu sax ñu ngi koy jaay. ah loolu sax nee na jar na loolu ñu koy jaay. jar na loolu sax. waaw. comme nga xam ne safar gi du ay caaxaan. déedéet déedéet yëpp a ngi ci léegi café. déedéet. waa ji nee na ma barka démb mun sëñ bi mën nga laaj mën nga dem seeti docteur mën nga mbàtt lu ma dama bëgg ñu seeti sunu sunu lekk waaye ndax léeg-léeg man dama àpp te bëgg lekk ba doyal màgg màggal gi ci ñun waaw waaw xéewal la te boo xoolee ki naa ngi ci kaasu ndox coono jëm sëñ Tuubaa moo ko mat kër ne woon na sëñ Mourou Moussa bu ngeen sàgganee ba tubaab bi tey sunu ma jëlee dafa mel ni man mosuma tukki mosuma dem fenn waaye bu ngeen góorgóorlu ba denc ma Tuubaa lu ngeen tàmbali man dinaa ko yeggali. moo tax kon fi may tëjee. mukk waay. lii may ñëw Moussa affaire bi كنزا ولا ذكرا ما خادما من خيب ولم سنهج والميراث يا إلهي وجبي الأمر غير مغدر في الخلاف حول الحي وسلم في وجهي الأبد اللهم مدار في خلاف

lii may wax te ñu gën a taay ku ci aw yëngatu ci yàlla sa aada xaadim rasul jërëjëf xaadim rasul

bu ko ca ngeen jëf am ma jaaxal leen ni dama fi ko yëpp ko jaare ni yëpp ko jaare am ma jaaxal leen ni tege ko fa ma taxaramul masir ila jurban la daan la zazil law ay yara sinama bisima raamu raamu raamu raamu masir ila jurban bamba defal nii sa loxo yow ibu waral wax leen yow ibu siidi laay sa maama waral yow

déglu te àgg suuf sëriñ bi sëriñ bi daam loo xamante ni dama ko te di la ko ñaan di ko ñaan yàlla mu may ñu gars yi ñu may ma tuuti déglu rek ci ginnaaw muy waa marché bii aywa ñu wàññi coow li tuuti déglu leen li tax ma koy ñaan mooy daf ma leer ba leer ni waa marché bi ñi ne ci ñi ne ci bëgg buñ leen doon génne ci marché bi ndax bëgg la yow kon kenn dootul des ci marché bi dëggam ngeen te yàlla dafa dogal ñu daan am ci marché bi bis boo xamante ni dafa doon bisu boîte tambi